ci buumu jokkoo bi Moustapha saw ñu ngi lay nuyu. maa nga leen di fay. ngay taskatu xibaar waaye itam euh, mm. analyste politique tey premier ministre Amadou Ba war a def li nga xam ne moo di déclaration de politique général euh, gannaaw ba ñu installé lii di assemblée nationale waaye itam ay weer des ngir ñu jëm ci jongante élection présidentielle yi lan lañ mën a xaarandi ci boobule euh, DPG. waaw jërëjëf maa ngi leen di gërëm leen sant ci invitation bi liñ ci mën a fii li ñuy wax ci tubaab c'est dans l'ordre normal des chose euh, que premier ministre ñu fal ko mu war a euh, joxe euh, wax fan la mën a fan la fan fan la fan nan nan lay liggéeyee donc euh, loolu moo waral déclaration de politique générale bi liñ ci xaar nag mooy dafay nekk déclaration ba nga xam ni gulet mun nañ ko wax ci lay am ci assemblée nationale bi ndaxte dafa nekk ci assemblée ba nga xam ni lu ñu naan tubaab jox wax équilibre des forces maanaam doole yi ñoo yem parce que li fa am ci li mu député opposition ak pouvoir daanaka benn la euh, loolu nekk na la nga xam ni mi ngi soog am ci assemblée nationale ba tax euh, déclaration bi dana nekk déclaration bu ñëpp di xaar te yaakaar naa ni dana bari ay laaj ñu ngi koy laaj ci ci déclaration bi muy def parce que dafa dana nekk la nga xam ni day waxoon na fan lay mën a jëme fan lay jëmee réew mi ak fan lay jëmee liñ ko denc liñ ko dénk du moins. Mhm. Euh, lan mooy pertinence su DPG bi bu ñu xamee ni euh, régime bi léegi mu jeex ba pare. waaw xam nga déclaration de politique générale du ñuy soog a nommer premier ministre donc il faut mu wax euh, fan la bëgg a yóbbu mbir yi donc c' est pas ce n' est pas parce que du ñuy dem élection que warul def déclaration de politique générale parce que état moom comme ni ñu ko tàmm état continuité la. te nekk ki suñ la falee jox la ay ndomb tànk war nga wax fan nga mën a foo foo foo bëgg a jëmee mbir mi lan mooy sax xalaat lan mooy si gis-gis ci doxalinu réew mi donc euh, euh, ce n'est pas parce que élection yaa ngi ñëw rek warul def déclaration de politique générale comme ni ko nu ko mbir mbir mu waxee déclaration de politique générale c'est-à-dire ñan lay doxalee donc euh, doxal bi nag da kay da kay def état moom continuité la mu mu mu nekk fi après wala mu ñàkk fi nekk après te nekk la nga xam ne li tubaab dox déclinaison la bu muy joxe rek pour pour pour jëmale réew mi kanam. Euh, sûrement ñu ngi koy xaar ci euh, sujet yu bëri su mel ni insécurité sécurité routière maritime ak fluviale. Mm-hmm, mm-hmm. waaw li sujet yi ñu koy xaar yi moom yaakaar naa ni bari na li nga en plus tey sujet yi nga am na yeneen nga xam ni mooy. ci mbirum dund bi parce que xam nga ni yàggul dara état bi jël na ay mesures pour mën a accompagner ménages yi maanaam kër yi ci nan nu ñuy mën a fexe ba euh, dund gi woyof tuuti euh, parce que ñëpp gis nañu ne effectivement prix yokk na à tous les niveaux donc loolu tax état bi jël ay mesures donc loolu itam daañu ci xaar la sur li tubaab dox l' de ces mesures là fan lañ ci tolli ak nan lay nan nan nan lay nan lay doxee bon leneen aussi yaakaar naa daa ngi ci xaar. Mm-hmm. Euh, Sénégal du ñu dugg ci at ba nga xam ni mooy at bu ñuy exploité pétrole. Euh, donc loolu il faut que daañu xam yaakaar naa ni daañu ci laaj xool ba xam nan lay nan nan nan lay doxee ak euh, ni ngeen ko xamee coow yi ci toppoon yëpp contrat yeeg nuñ ko signé ainsi de est-ce que waral nag waral ainsi de loolu yëpp yaakaar naa ne aussi xam naa ni moom député dañ koy daa daa daañ ko ci ci ci laaj. te ci loolu incha allah yaakaar naa dañ joxe ay tontu parce que avant muy nekk euh, premier ministre nekkoon na ministre de l' économie et des finances te li bari li fi li fi li fi am bokkoon na si nga xam ne ñoom ñoo ko ñoo ko sox ñoo ñoo ko soxee yaakaaruma ne nag dañ ci am ay jafe-jafe pour mën a tontu ci ci ci laaj yooyu liñ ko ci xaar liñ liñ koy xaar moom yaakaar naan ne sujet yi bari jotoon na ci jotoon na ci liggéey. Euh, bon baax na nag bon fekk xam naa ci kanam incha allah ñu xam nan nan lay mbir mi di demee. Mhm. Euh, ñenn ñi ñu ngi wax ni euh, déclaration de politique générale de plus mu mel ni amuñu ci yaakaar. non xam nga déclaration de politique générale comme ni mu ko waxee c'est que dafa du ñuy nommer premier ministre ñoo ngi soog a nommer premier ministre bu ñu toogee ñetti at nga xam ni amuñu premier ministre. te premier ministre constitution bi dafa ni suñu la nommé da nga war a def sa déclaration de politique générale donc ça loolu loolu constitution moo ko moo moo moo ko moo moo ko sas. Euh, au-delà si li ko constitution bi sase comme ni mu ko waxee léegi euh, premier ministre suñ la nommé ak su gouvernement il faut nga ñëw devant la représentation nationale nga nga décliner say say say say objectif wax li nga bëgg député yi parce que ñoom ñoo fa toogal ndaw ñoom ndaw réew mi donc euh, c'est pas une déclaration de politique générale de plus parce que ñi fi premier ministre yi fi jaaroon def nañu déclaration de politique générale décliné nañu seen mu nekk liñ ko waxee léegi déclaration de plus. Mhm. c'est normal c'est dans l'ordre normal des des de fonctionnement de l'État. Mhm. Euh, lan nga yaakaar ni war na ko mën a changer DPG bi. bon Euh, xam nga wax naa la ko léegi état continuité la. Mm-hmm. Euh, li muy li muy li muy li muy changé mooy maanaam en fait doxalin bu bees na moom <clears throat> il faut mu wane doxalinam na lay doxalin nan nan lay nan lay fexe ba comme ni ñu ko tàmm di waxee rek. rendre concret les les les objectifs que le président lui a lui a fixé le président dalay jox dalay dalay orientation dalay jox dox dox euh, ni war doxee donc yow nag yow exactement doxalin bi na lay demee donc man yaakaar naa ni foofu la débat bi di di amee nit ñi daañ ci déglu xool ba xam nan la nan lay fexee ba li mu bëgg ay mébétam nan lay fexe ba mu ba mu mën ko liggéey ba mu mën a sotti te ci fan lay jaar pour pour def liggéey bi. Mm-hmm. d' accord euh, monsieur Sow mu doon euh, une première euh, fii ci Sénégal mm-hmm. premier ministre di def euh, déclaration politique générale mu nar a jàkkaarloo ak assemblée général bi nga xam ne mën nañ wax ni égalité des force la diggante mm-hmm. pouvoir ak opposition yi doole yi dañoo tolloo mm-hmm. ban posture tey la opposition bi war a taxawee waaw comme ni nga ko waxee effectivement waxoon nañ ko léegi dafa xam nga ne nañu déclaration bu inédit bu inédit la li ñu naan gulet depuis que bu Sénégal indépendant ba léegi c'est la première fois ñu gis assemblée ba nga xam ni force yi assemblée nationale ba nga xam ni force yi ñoom ñoo les forces comme on dit les forces sont égales doole yi ñoo yem euh, loolu euh, man ci sama gis-gis day nekk la nga xam ne luy dundal démocratie la et premier ministre aussi su ñëwee euh, yaakaar naa ni député yi dañ ko déglu ak ak ak xel ak attention et ñoom aussi gis naa ni yaakaar naa ni ñoom am ñu ay laaj yi nga xam ne daañu ko laaj. E tf de am naa yaakaar tam dana dana dana dana tar parce que comme ni ñu waxee c'est c'est l'équilibre des forces dana am euh, ci sujet yëpp daanaka dana am ay ay laaj yu ngi si laaj d'autant que euh, gis nañu assemblée bi malgré quelques quoi yu fa am gis nañu député yu xarañ ñu fa nekk ñi nga xam ne war ñu mën a poser des questions pertinentes nga xam ne pour l'intérêt exclusif de des des populations donc euh, loolu moo ci moo ci moo moo ci nar a euh, bees euh, naa ni yaakaar naa nag du yomb ci moom parce que comme ni nga ko waxee gulit affaire bi am te du yomb ci moom te bon certainement préparé wu na pour pour pour pour jàkkaarloog député yi et puis indil leen tontu yu ñu koy laaj parce que loolu moo ci am solo na indi tontu yu nga xam ne c'est convaincant tontu yu koy député laaj bu nga xam ne c'est pour l'intérêt exclusif des population accord euh, ci journée nationale de la décentralisation président Macky Sall profité na ci. Euh, mhm. wax na euh, xam naa REES lay waxal ndax nee na mhm. Sénégal. Euh, benn association des maires du Sénégal moo fi am li ni mel la wax mu wax ni mhm. moo di AMS. Euh, lan nga jàpp ni loolu la bëgg a wax foofu. man dama yaakaar ni Sénégal démocratie la. jusqu'à preuve du contraire démocratie la te démocratie il faut mu am ay gise yu wuute. Euh, man loolu man dama ko dama dama ko gëmul parce que su doon lu mën a pertinent la kon duñu naan benn parti politique mooy am benn syndicat mooy am benn association mooy am association des maires ay association association moom tu as Sénégal démocratie moo wala may liberté nga créer association donc euh, fu mu amee AMS mën na yeneen maire aussi mën nañu regrouper créer seen beneen seen seen beneen association donc loolu moi je me dis Euh, ay déclaration xam ne si sama gis-gis ñu ko waruñu ñu ko def ci ci ci réew mi gëm naa ni lu luy nasaxal démocratie la te ñun amuñu droit pour di nasaxal démocratie. Euh, jamono ji euh, tension politique am na fii ci Sénégal. gis nañ arrestation yu bëri yi nga xam ne ci opposition bi la gën a bëri bu ci mujj mm. moo di arrestation fadilu Keita coordonnateur Nemmeeku Tour Pastef ak euh, mm. ñeneen ak ñeneen euh, mm. est-ce que mun nañu wax acharnement la jamono ji bu nguur gi di def ci opposition bi waaw xam nga bon euh, war naa ko léegi c'est su ñu nekk ci démocratie il faut aussi ñu xam démocratie dafa am c'est haut et c'est et puis dafa am ay ay règles c'est-à-dire si yaa de yaa de mooy am liñ tubaab di wax ay contradiction ay ay ci gis-gis Eh, man sur l'arrestation de Fadilou Keita gis naa poste mu bind si sama gis-gisaan yaakaaruma ni loolu war na mën a tax ñu arrêté li mu bind ñu arrêté si nit ba pare di ko tëj kaso que li mu wax yow ma gisuma ci lan lu ñaaw et puis moom li mu wax am na ñeneen ñu wax lu gën a garaaw fuuf li mu wax. ñooñu mm-hmm. kenn inquiété wu leen. donc xam nga day nekk genre de politique de deux poids deux mesures ba nga xam ne Sénégal yi mënuñoo gëm parce que aussi. dañoo xam ne ñun nit nit ñi fi ay nit ñu yeewu ñoo fi nekk nit ñi dafuñu xam nañu lu xew parce que waaye donc euh, euh, am na nga xam ne yaakaaruma ni mu mu mu jaar na ñu koy ñu koy ñu koy def ni man daal sama gis mooy nu ñu bàyyi nit ñi wax seen xalaat ci nu ma gën a rafetee bàyyi leen ñu dox seen dox bon maintenant nag démocratie comme on dit c'est c'est un euh, c'est ay gis ay ay gisee yu wuute la donc am yenn yi daal def ko fi jarul parce que gisuma gisuma lu fi jar ñu àtte ci ci ci ay pour des déclaration Mm-hmm. yi nga xam ne amul benn benn benn solo. d' accord euh, affaire Pape Alé Niang ak arrestation vendredi ñëpp ñu doon xaar ne dina am au moins liberté provisoire ba jamono ji tey lundi mm-hmm. euh, amagul li nga xam ne moo di liberté provisoire mu ngi ca kaso bu uh, Sébikotane jamono ji tamit mm-hmm. état de santé am demeewul noonu. Euh, arrestation Pape Alé Niang euh, loo ci gis loo ci loo ñu ci mën a. man d' abord d' abord d' abord ko rafetluwul rafetluwuma arrestation Pape Alé. parce que bon. gëm naa ni euh, li li mu def liggéeyam rek la liggéeyam la doon def donc euh, euh, man yaakaaruma ni une démocratie su bu bu ñëw ba fii ba deux mille vingt deux war nañu arrêté journaliste parce que day def liggéeyam parce que li tax ñu arrêté ko soo liiree li procureur ba sa amul lenn lu war a mën a tax ñu war ci mën a arrêté nit donc Euh, man sama bëgg sama gis-gis daal mooy duñ ko war a bàyyi mu def mu def liggéeyam normalement te vraiment man dama koy ñaaw dama koy naqarlu hmm. euh, nekkul la nga xam ne dañuy dañuy dañuy jëmale kanam euh, te baaxul daal ci image Sénégal à l'extérieur hmm. parce que gis ngeen effectivement condamnation yi am un peu partout dans le monde pour des pour pour ça nga xam ne la nga xam ne waroon nañu ko mën a éviter dafa baaxul ci su su suñu démocratie suñu suñu démocratie ba pare baaxul ci suñu image à travers euh, le monde extérieur. d' accord merci beaucoup euh, Moustapha Sow. jërë ngeen jëf merci.